Bonsoir, très chers internautes de Guédiouaï Info TV. Aujourd'hui, nous sommes à la découverte d'un jeune champion de Guédiouaï, qui, n'est rien d'autre, que Orca de Maïtid numéro 2 de l'école de Wallo. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que si vous venez au sein de Guédiouaï, vous allez trouver un, grenier. Et à travers ce grenier, vous allez trouver des grands champions, tels que les Balgué numéro 2, les Alinsé numéro 2, mais aussi les Guigui et Zampas. Il y a aussi des lutteurs qui, sont dans l'antichambre de ces champions. Nous pouvons noter les Marley, les Pambay, mais aussi les Alinsei, les euh, Junior. Et aujourd'hui, nous avons les jeunes champions qui, qui, qui, sont en train de monter en puissance, tels que Mbaiti, numéro 2 à mon côté. Il y a aussi les Alinsei Junior et les Yusundur de l'école de l'île Balagay et tant d'autres. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus à la découverte de ce jeune champion qui avait disputé un combat le 23 mars écoulé. Et, et, au-delà de ce combat, il avait introduit un recours le 25 mars. Et le, verdict est tombé. Ce, ce 17 avril, dernier et il a été finalement déclaré vainqueur au sortir de ce, de ce combat. Monsieur Dame, permettez-moi de faire une transition dans la langue de Côte du Barma, comme j'ai l'habitude de le dire. Bok internautes yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy euh, géejuwaay ben euh, si benn ndaanaan boo xamante un jeune champion comme ni ko tuddee xale boo xamante mi ngi bay ci Euh, ndax comme ni nga koy faral di waxee rek ba leen ñëwee géejuwaay deen fekk li nga xamante mooy gërëñe te ci biir gërëñe boobu deen gis ay ndaanaan yu mag ay champion mag ku ci mel ni ñoom Balla Gaye numéro 2 ñoom Lac am ay xale yoo xamante ni tamit mooy les jeunes espoirs ñu ngi bay seen waat di wane seen bopp mbaytin numéro 2 mi nekk ni suma côté ci la bokk ku ci mel ni ñoom Youssou Ndour bu école de lutte Balla Gaye ñoom fils de Balla euh, mun naa ñu Euh, mu daal fay jóge arbitre bi daal jox victoire ki nga xamante ni mooy euh, Mbaye Mbaye Mbaye Balla par décision arbitrale parce que moom moo gënoon néew avertissement mu jógee fa am lu ko yoon may mu daal koy def dem ci plateau bi contesté dem introduire recours le 25 mars 17 avril bi ñu weesu ci le verdict bi tombé ñu daal koy jox li nga xamante ni mooy ndam li loolu waral tey ñu seet si ko daal waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom également ci carrière Euh, waa ku si mel ni Père Becaye ak waa gàlle bi yëpp yaayu mbay Diagne ak sama doom day làmp maa ngi sant sama booy muy Ama ak armé di sant sama grand market sec waaw xam naa dafa xaw sonn moo tax ñëwul quoi waaw maa ngi ñëpp waaw di sant sama waa ko ñëpp waaw. afay ma ne maa ngi sant waa gàlle bi su ma nekk nii këñëb làmp làmp sama xarit la sama doom ndey la sama lépp la gàllam laa nekk nii moom la xam nga gàllam laay defee émission bi nii. maa ngi sant Mbaye Diagne heure su ma amee combat di sonn ak sama boy bi armée ak sama boy bi ama ah di sant Maguette Seck bu baax sama combat bi desee sonn daju li maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi koy nuyu bu baax au passage waaw maa ngi sant sama waa koñ Guèye gépp bàyyi ma fenn gunaas ñetti mbaar bax daal ñëpp waaw parce que combat bi gars yi xam nga sonn nañ ci quoi waaw. Ah, mbër avant ñu revenir ci combat bi dañuy wax tuuti ci sa carrière bu ma la laajoon tey kan mooy Mbaye Mbaye Tine numéro 2 léegi Iri Waalo waaw mbay jën moom mi ngi nii rek benn Baye Fall rek waaw waaw maa ngi nii benn Baye Fall nii rek waaw bëri naa treize combats treize combats laa bëre am ci neuf victoire am ci quatre défaites waaw kookoy Mbaye Jën bu loolu weesoo lan moo la dugal ci làmb man moom dëgg yàlla maa fooyee làmb quoi man maa fooyee làmb man làmb moo làmb moo sama jàng làmb moo yàq sama liggéey xam nga làmb moom dëgg yàlla waaw dama tarbi tarbiwu quoi di ba di ba ma nekkee booy ba léegi maa ngi mbapat ay dalifoor ak fu ne laa dem ci mbapat billahi wallahi waaw man moom dëgg yàlla moom xam nga booy laa quoi mais dama teel a dugg si làmb ñu bëri xam ne yaakaar ni mag laa te man booy laa 93 laa judd billaahi wallaahi xale bu ndaw laa waaw dama teel a bëgg làmb xam teel a bëre waaw ci kaw mbapat yooyu yan mbapat nga jot a jaar ak yan champion mbapat mbapat mbapat daan naa ay de tere njaar nag bëri naa fi lu ma rey cinq lépp maa ko daan ay mbapat ay xam nga jël naa fa ay tournoi ba taay keroog rek laa doon bëreeg doomu kere mbañik mbañik kere maa ngi nañ fee mooy kii mbapat waa Fass fi maa moom ñoo tase foofu ma daan ko fa booy bi demoon na du ma mi ngi nii ñoo àndoon ñoo àndoon waaw maa ay champion moom dëgg yàlla ci mbapat waaw nga jóge ci Mbapat daal di dugg ci li nga xamante ne mooy lutte avec frappe ñu gën ko xam ci arène ban année nga débuté lutte avec frappe. laa bëri sama premier combat 2013 laa ko bëri sëñ Morou tëgg jour combat ak Diadji Or waaw man ak man ak kii Modou Nixon ba ma jël combat bi ndeysaan ñëpp dañu woon du kii Nixon moom man billaay wala sama waa koñ booy waaw moo loo xam nañ waa li may wax nii bu baax boobu laa gën a nekk booy mais làmb jom la càndum billahi wala mo ñew wona jom daan mod nixon jël bu reuy wa ci lama boy gëmé ba légui tires ba légui nak billahi wallahi waaw jóge fa buñu xolé carrière bi ñan la tëddé ñaata victoire nga am ñaata défaite aussi man ma ci tires combat na 9 victoire 4 défaite la am ma ci 9 victoire wa ma 9 victoire mu na la limal ñima daan ñep ci lamb wa son premier combat mod nixon la daan sama deuxième combat ma bëreeg booy Dakar lam baalee ñàkk après ma jóge fa jël gaaro gaar daan ko ba ma jëlee gaaroo gaar daan ko jël saa coomba jarbaatu Bombardier ñoo bëre Alsane Djigo jour combat Béyo Modlo ak Géant Malika après ci laa fa jóge jël mbañu kere daan ko jël ñànga daan ko jël gaaro gaar daan ko daal di jël euh, faamara coor bu jaxaay daal koy daan waaw après ci laa bëre pël bu Tivaouane Peulh ak wës jàmbaar ñoo daan waaw am na benn combat am dama ciy taxaw tuuti muy sa diggante ak Mbagnick Kairé Mbagnick Kairé tax parce que xaw na ci bëri tuuti def na benn sortie récemment bi ko nit ñi laajee mu ni sa diggante ak moom verdict bi lañ ko kase loolu am na wala amul non dama ko daan verdict bi dañoo bëre heure su ma ko jàppee muy daw di génn làmb ji temps bi jeex moom waa kii la am cinq avertissement te man boobu ñaar laa am temps bi jeex njoma victoire loolu moom dafa leer nañ jour combat Koña Balla Diouf waaw ci lañ bëre ma daan ko juróobu la premier combat man tam boobee sama troisième combat waaw Mbañu Kéré maa ko njëkk a daan ci làmb waaw. waaw mujj ñu dégg ko mu annoncé ni verdict bi dañ ko kase defoon na li nga xamante ni mooy recours ba léegi yow loolu am na wala amul jot nga information dañ kase verdict bi loolu dëgg yàlla loolu loolu moom dëgg yàlla amul moom victoire ba léegi mee ngi man man maa ko daan bu demoon CNG victoire moo fa ne billaay walaay waaw mais mbëri nañ bàyyi yooyu làmb làmb la rek làmb moom que le waaw làmb moom làmb la rek remer gañ ndam yàlla moo ko yor heure boo waree daan kenn si dara man yàgg naa sonn si combat préparé entraîné xamaat xamaat da lu na ñëw di ñàkk mais teew xamaat mooy loolu quoi damay gëm yàlla waaw làmb moom bëri la ak daanu man su ma daanoo garaawul làmb la rek mais en tout cas lépp lu ma war si làmb dinaa ko def dinaa xama dinaa liggéey dinaa ngemb waaw mooy loolu quoi maanaam dinaa ko jox cër bi quoi waaw ma ñëw bëri nag te nag waaw du ma réglé mukk dama ñëw wane jom fula fayda waaw lu ma yàlla may ma xam ne mooy loolu man sama combat yëpp nag sama combat ñi ma bëreel ñëpp combat yi xam nga du yomb sama treize combat yi ma bëre yëpp benn combat yomb si billaay walaay benn combat yomb si maa ngi sant yàlla bu baax waaw maa ngi sant yàlla bu baax waaw comme te yàlla may may ndam di ma suturaal maa ngi sant yàlla bu baax waaw di ñaan yàlla mu yokk nag càndum mais ci kaw combat bobu coow li da ci beur aussi ñun da nga sóoraale mbañ bu mu ëpp daan li ngay def sa bop mo doomu mbeur la ñu waron dox ci kam parce que ya xoon ëpp doole bu ñu xoolee waaw jamono joon ñoon non jamono joo gaay ñoo gisee lool rek mais mañik sama morom la billahi wala te jamono joo mom mi ngi and ak ay jeen kéré ay boy kéré ak la dëggee numéro man juroom nonu anuma kenn ay boy rek la andal billahi wallahi manako nak lamb ñi làmb ñepp ci bit la taxaw ma nga yow ñoo de ci bit geew te billaa wala ba duggee si biir géew loolu laa dëggal dama koo duma waaw yóbbu ko ardo ñaari yoon heure su ma ko jàppee muy daw di génn papa moo ko diggal loolu waaw papa ji moo ko ne kii moo la bu la heure bu dawul génn heure su ma ko muy daw di génn waaw ba temps bi jeex jox ma victoire foofu laay waxee comme yaa ko ëpp doole est ce que jotul woon nga accéléré daal dox ci jàpp ko mais càndum bëre ñaar moo koy def mais moom su ma ko jàppee su ma jàppee xam nga day dem ba saako yi taxaw foofu billaahi wallaahi mbaa ma génn saako yi xam xam beure ñaar mo koy def ma ah, man ñëw pour beure mais mom xam mo Modou Lo Modou Lo moom xam mais mom xam dafa ñew pour défendre quoi waaw ah, parce que bu may bëre la dégué numéro 1 mo tok siès nan ko heure bu la heure bu la jappé rek dawul genn dawul genn ah mais jamo jooju ma ngi ikir mor faram quoi mais légui man ma ngi ikir wala sama combat bi nag gaay dañ see japp ku ci melni ay ñom ron Alioune sey numéro 2 mafia karabi keroog wa keroog maa ngay keroog maa wa seeraan mafia bi billaay walaay gay yi xamal combat bi waa dañ tee quoi sak fajar billahi wallahi kara ñu ñëpp la yee téléphone ñu dem montagne ñetti yoon pël billahi wallahi maa ngi sant mafia kara yëpp wa di sant igir mo fanam bi ma jóge nekkul ay problème mo tax mo fa mbër mu nekk da ngay xool li la xam nga def ko quoi man ma jek jek rek dem waaw. mbër foofu laay taxaw tuuti sax ne nga nekkul ay problème mais jóge nga fa dem écurie Waalo da nga sentir ne am nga loo manqué loo xam te ne mi ngi écurie Waalo wala. waaw non xam nga rek waaw nekk si écurie maanaam ñi nekk si ah maanaam waaw ñu nekk si école bi waaw mooy la quoi paa yi ñoo war di waaye yamle booy yi quoi mais gars yi duñ yamle xam la man damay am wa sama deuxième combat si la siisu quoi dama am combat billahi wallahi dem sama keur yaay ñag ngemboo bofa gisuma kenn gisuma ngeelum gisuma kenn billahi wallahi xama dama dama gis boy xam man maa leen mën fouf ñu am combat gaari ci son di si jàpp waaw man nag lool moo metti mo dama juggé eko di lu faram suma la déggé da nga am combat ñu lay billahi wala ñu sétane ma billahi wala mo sama avant mooy avant mooy bëri combat bii nii man ak alliance biram billaahi alliance biram maa ko mën foofu billaahi wallaahi maa ko mën foofu mais jàppale la ma daanee jàppale mais bu ñu ko toogoon si kàddu laam boo ñu jëloon fii contact ma daan ko ba mu billaahi wallaahi waaw mais nag mais sant yàlla la parce que man équipe moo faram booy ba mu daj maa fa njëkk a bëri arène foofu noonu ci booy yëpp. booy yëpp booy fa nekk yëpp à part Mbaye Pambaay man maa fa njëkk a bëri arène 2013 billaahi wallaahi ba mu fay bëree amul benn booy bu saña xam naan billaahi naan day bëri foofu barki alxuraanu karim maa fa njëkk a bëree wër na alxuraanu karim waaw. am na solo bu loolu weesoo ñu wax ci sa dernier combat surtout dama ci wàllu préparation bi nan nga waajoon combat boobu. mooy combat ma jógee nii. combat yi moom dëgg yàlla moom waaj naa ko li ma ko war Mak Maguette Seck Maguette Seck nak sonna ci combat bi trop. billahi wallahi gannaaw ñak ñaan ku bax ko xamanteni xam ma moy loolu quoi billahi dama yene barki alquranu karim combat mom deug yalla liggéey nañ ci quoi wa parce que man combat Maguette Seck nongulo bobu leg ma ron yegay din billahi wallahi bobu ba combat mom man man damaa paré fep wa man dama paré fep boy bi xol ci bi beure bi ñana ko fi ba suba do ma daan ma leer na ma nga jëm na plaqué def lu ne waaw mu mel ni xeer nee naa ko fii ba suba doomu daan damaa see yéeg xam nga mooy loolu ko dama yéeg ay din ba sonn barki alxuraanu karim matnaal bi damaa yéeg ay din ba nduróog din contact ba bëgg a dee ron waaw ron de xam nga mooy loolu quoi billahi wallahi combat moom dëgg yàlla liggéey naa càndum moo tax làmb liggéey rek mooy fay làmb moom liggéey kasa la du dara ay gàllaaj yëpp deuxième la si làmb entraînement mooy première gàllaaju mbër waaw te man moom yàlla def na ma damaa bëgg entraînement sama xol waaw billaay mu si wàllum saal ak géej ak contact ak lépp waaw fu ma dem daal waaw mooy loolu quoi damay bokk. ñu gis aussi sa wàll préparation nga doon ànd ak ku ci mel ni mafia Alioune Seye 2 bi ñu gis ne aussi macha allah boo yi nga xam te ne dañ fay nekk di liggéey lu métti ñu si ëpp tamit am na ñu si bëri am nañ ndam ku ci mel ni Youssou Ndour ay euh, réparé aussi ak ñeneen ak ñeneen lan mooy secret bi. kon mafia bi nag càndum dëgg yàlla dañuy liggéey ko waa dëgg yàlla dañuy liggéey Alioune Seye numéro 2 lu lay teg gaay billaahi wallaahi lu méttee mét lay teg gars yi billaay wala daneen liggéeyloo pare xama ni leen ate yanu billaay ku nekk jël kenn ñu sëfande si kaw montagne ñu bàyyi sa xol bi di mooy lu gaa di bëgg a wadd wër na alxuraanu ko dëgg yàlla mafia moom macha allah waa ñu si bëre ñëpp ñëpp a daan waa kenn rek waa booy moo ci daar muy muy xam muy Papa Dia Anzeizo te moom waa champion la quoi xëy na waa defen moo ñëw rek mais mais dëgg yàlla def na li mu waroon def wa defet mo ñew quoi wa di ko ñaanal heure bama ma combat yalla nako yalla may ndam di ñaan pa bo jina tamit bama ma combat yalla nako yalla may ndam ak ak gaay bok ci mafia bi da daal ko ci melni ay matcha fi sa Balla Youssou Ndour xama ay Thiat bu walo xama gaay yeb billahi wala kep ku bok ci mafia bëri daan ma ngi lay sant di la gërem waaw. bu ñew aussi également ci combat bi manière bi ko beure yeen ñaar combat bi diire daal trop lan mo waralon lool. no boy bi nangul beure xam nga bëre ñaar koy def te moom booy tey ñëpp dañu woon moom doole mais bañ jàppandee loolu feeñu fa waaw bañ jàppandee loolu feeñu fa bari nañ maag moom combat métti ma duma ko yóbbu ko ardo xam nga abalee mu xam ne moom tey ji bu bëree billaahi bu bëri woon waa dama koy daan waaw boobaa jëlib day gën a leer billaahi day gën a leer parce que booy yooyu xam nga dañoo bëri wax ko quoi booy rëbësi waaw man man président la don joobee mais léegi may ko ban président la ram jaay wa man ñom ñoom nañ bu baax man gey suma jum la don entraîner sa goudi fala ne don nek wa sa ngon fala don entraîner entraîné ñom ak nañ bu baax waaw moro man su may bëreeg non noonu duñ ma daan billahi wallahi fi la la koy jannum ñoon su may bëreeg duñ ma musa daan wa parce que dañoo bëri wax. li wax ni foko tek ci wolu sa bop wala ci ginaagu deugar wala dara. non non Thiam li may wax nii fu leer nañ laax ko teg nag li may wax nii fu leer nañ laa ko teg billaahi wallaahi boo yooyu su may bëre ñoom duñ ma daan billaahi te booy bi xoola dafa dem ba si billaahi moo dem kii promoteur bi daal di may laaj daal may pare ba pare soog maa laaj billaahi wallaahi moo am ci laa woo benn maara mu booy bi de jekku na la mais jëlal combat bi waaw moo tax ma jël combat bi. mais billaahi wala dama maa pare pare soog maa laaj. yàgg na la préparé da laa waajal ba jekku la doog la jël. soog ma jël billaahi ñanaa ko signature bi billaahi keroog signature ñanaa ko yow waaw li nga def yëpp waa man xam naa ko danga maa laaj ba pare kii waa danga maa jekku pare soog maa laaj mais billaahi wala bu ñu demee ba jour làmb dama lay daan. bu nga demee maraam ni la jekku na la yow lan nga yëg moment yooyu. non <laughs> ah. ah. instant moy lo, xam nga xam nga sëriñ monom ñoom monoom dëgg monom monom, monom, monoom dëgg yàlla xam yalla ma maa ay mara yo xamanteni ni ay ndaan lañ ko waa mais xam mbeur mbër mbër dafa gëm sëriñ bu neexu jekku nañ rek day xawa jaxlé jaaxle àddunaam tukki non jaaxloom parce que mom dama ko laaj bu xam ma jël combat bi xama nga mënuma jekku na la me jëlal combat bi inshallah waaw bis boko jëlé di nga daan ni si ndam te kooku lu mox ci billahi wala day am mënuma jëlal combat bi di nga si am ndam après ci laa woo Matar njaay na ko garaaw wax la gars yi waaw loolu jiboo rek garaaw. bu kooku weesoo am nga yeneen sëriñ ñun xam nañ mbër moom du am benn sëriñ yeneen sëriñ lan la wax ba nga demee ci ñoom. waaw mais làmb ñu moom dëgg yàlla moom moom billaahi wallaahi làmb ñu moom billaahi wallaahi li ma waxoon lépp laa gis waaw sam benn mara nee ma <laughs> waaye di nga koy yóbbu ardo te bu ñëwee di nga daan maanaam maanaam sant waaw wax baaxul quoi. lamb tegtal la woon. waaw waaw waaw xam nga lamb teg tegtal la quoi dëgg yàlla moom te léegi xam nga maaraay boo may combat moom xam waaw mooy loolu quoi ay ay tëtay leer nañ lay jox. billaay wallaay lamb moom dëgg yàlla jamono ji moom effet de jënd la quoi lamb ci anam fi moom effet de jënd la. billaay da ngay am doole ñëw entraîné nekk plein forme mais ba mais da ngay ñëw ba si lamb ji gëlëm. Mor Lamouj dëgg la ko waa doole ci la mais gàllaaj sa gàllaaj see bokk. mais boo ne affaire jinne la est-ce nekkul da ngay jox euh, mystique bi gëdd ba mu ëpp. noonu non en tout cas làmb daal lépp ngay boole càndum da ngay doole mooy premier gàllaaj bi naa la ko da ngay jëm dugg si àll bi am fit am jom làmb loolu kasa la làmb billaahi wallaahi loolu kasa la jom la ak fit jom ak fit la. waaw te man moom yàlla may na ma loolu maa ngi sant yàlla bu baax man mbër noo mënut a toll buñ làmb boole ba am ne prix même soo may rey du la reculer deux pas dañuy xeex dañuy bëre. billaahi wala te du ñëw mukk si làmb waa di wane ñàkk jomm xalaatu ma ko sama yaa ngi nii booy yaa ngi nii billaahi wallaahi booy booy loolu lañ ma gëmee man nga man même man même boo may daan doo ma ñëw rek daan billaahi wallaahi dinañ bëri combat bu métti waaw. Member est ce que mën nga revenir ci action bi nga ten, ci le sud bi amé fim daano ba def 4 api lan mo andi lolu mën na nek mak mom mak mom xam mak boy dañu jappante abalek ma jël sama loxo dar gay ki japp sengori abalek mëna abalek mëna damay jëm debu nax xam dar may plaqué abalek xama abalek ci la rasul deux pas abalek dar gay fakat dari bëss bobbi ba bobbi takku suuf billaahi wala man maa bàyyi quoi man maa bàyyi waaw man maa bàyyi ne eh arbitre kii daanu na mais arbitre na bëre man ma bëre quoi c'est que c'est que arbitre c'est le man tam ma bëre mais mais ñi nekkoon si làmb ji amateur yi ñëpp xam nañ daan naa ko waaw billaahi instant man gars yi maa ngi dégg seen yóbbu ñoon ñoon jeex na jeex na jeex na mais arbitre c'est le maître man tam lu may def xam lu du bëre quoi waaw waaw ñu jox ko victoire par avertissement nga jóge fa daal introduire li nga xam dugal li nga xam te ne mooy recours loolu loo xam te ne sa xelu bopp la wala li nga ci waxtaan ak say bokk. waaw loolu moom dëgg yàlla avant may génn si biir làmb jour combat bi avant avant génn si làmb ji. billaay la benn paa bu nekk CNG daal di wóoroon ne ko seen boy bi moo daan mais mais arbitre yi xam nga ñoom des fois dañuy juum quoi xaw ma mooy la ko xaw ma bàyyi leen gëlëm loo xaw ma xam la xam nga léegi benn paa bu nekk CNG moo wóoroon ne ko seen boy bi moo daan. te bu defee recours incha allah rab nañ ko jox victoire abale ci la doon ñëw wax ak man ne ma incha allah lundi nga dem bind recours mën ko waa amul solo léegi lundi ma ànd ak Maguette Seck dëgg yàlla sonn na torop ñu jaabante dem jëndi kele dem jëli vidéo bi lépp maa ngi sant Lamine nag moo ma jox vidéo bi waaw Lamine bukki Lamine Faye Lutte TV ak booyam bi maa ngi leen sant bu baax ñoo ma jox vidéo bi waaw di sant Maguette bu CNG moom tamit sonn na torop waaw. ci kaw recours boobu am benn moment ngeen ma euh, verdict mi waroon génn li nga xam ne mooy mardi mel ni après dañ ko repousser waat xaar boobu nan nga ko doon dundee nga waroon mo waroon génn nga après ñu repousser waat ko nga toog di xaar di am ay jiixi jaabaam dina la jox ndam wala duñ la jox ndam souci yooyu ak dud yooyu nan nga ko doon dundee waaw xam rek jamono jooju magat màggat laa lam woo quoi màggat heure su ma ko munuma gars yi ñëwaguñ il faut nga xaar ba waa commission bi ñëpp dajaloo xam nga abule boo defee gars yi xoolu paa yi mooy paa yi yi xam nga ak waa CNG ñëpp waaw gars yi yëpp ñooy toog aba léegi aba léegi gars yi teg vidéo bi nii gars yi xool waaw même sax sa waay naa bindoon na recours mais retour bi mujjul jàll dafa lay fi baal da daan loolu moom leen na waa senegal njaay ñëpp mbaytin dafa daan mbay baale kay <laughs> waaw waaw zoom noonu noonu kii recours yi ñett la woon quoi mbër daa bindoon recours mais mam baal da koo daan daa bindoon recours mais fi sa baal bi lay wax naan xaaral foog ñëpp dajaloo est-ce que commencé woon di découragé. non non découragé wu ma billaa wala découragé wu ma non ñu naan jamono jooju laay woo màgget heure su ma koy moom mooy daloo sama xel moo yow yaa daan teel ak booy incha allahu rabi sa ndam li nga man nag loolu moo tax xam nga mooy loolu quoi jaaxle ma quoi waaw moo tax man moom billaa wala Matar ba may woo Tamba Tamba barki la ma soog a woo moom Tamba man ak màgget Seck barki alxuraanu karim mu doon ndam lu am solo léegi fan nga jëm. waaw Thiandoum man nag waaw man nag damaa yàgg si làmb nag dibu 2013 ba léegi xam nga Thiandoum booy mooy bëreel yëpp billaay wala du yoon mooy bëre ñoom waaw keroog Modou Mbaye mi ngi koy wax billaay wala mi ngi may interroger xam nga dem ko wax quoi naan ma yow baytin booy yëpp du yoon ngay bëre ñoom waaw ma ne ko non xam nga la la toog bañ tamit xam nga njëriñ quoi man booy laa te chaque jour maa ngi tërën xam nga moo tax mais billaay wala ñii may bëre ñi ñëpp ñànga ba ma koy daan billahi ci Baye Ndiaga la joge wa da Baye Ndiaga guddi mi xam mi ngi def ni xam di beure grand combat di dan mo ñanga ñu beure abar Baye Ndiaga dan ko abar man ci la jël ñanka dan ñanka abar ñànka joge fa dan nukiya nukiya la mujjé dan, man ma garo garo garo garo garo gar musul dan. mbër yaakaar naa ne lim duñ fi joge ñi ngay beurel waro bëreeg ñom ñan nga war beurel fim toll ni fim na kay cànn fim na kay ñi mo beurel moy papa yadda mako bay victoire te maa ko njëkk a dugg si làmb waaw mi ngi ci combat waaw kon kon ba kooku garaawul kon mais comme mais comme booy di bëre grand combat yi nii yëpp albarka kere dama koo daan damaa daan mbañik daan daan albarka mbem bébé jeen waruñoo mun a bëre bébé jeen mënumaa bañ bébé jeen ba ma ba ma daanee mbañik man la gënoon sonal mais jamono jooju waaw si làmb ma ne ko booy ma du ma sa morom liggéeyal ba ci kanam mais fi mu lamb boole nañu billahi wallah bu ñewé maamu ñu bëri mo may ko sens. tol ni paré nga pour jël bébé jël paré na pour jël bébé jël man barki alcorane karim Assane Ndiaye Assane Ndiaye wa yow lay waxal kérok ma la koy wax ñana la mag bébé jën suñu combat da fora lèr bébé jël dañu war bëre maag lamb ñu bolé wa mo gën muy nekk fi di bërek pay ay taal ngir gi ñew di len daan wa na jël combat jang combat yi metti waaw ah, man sama combat du yomb càndum waa te man nag ni ngi may gisee nii ay combat yi tar rek laay bëri de càndum mosuma bëri komba bu yomb ah billah comme booy nii ay nekk bi ñu leen tànnal man moom dëgg yàlla kenn mosuma tànnal man combat yi ma bëri yëpp ñànga bu may bëri moom billaahi wallaahi ñëpp dañ ñi booy bi ñànga da koy rey jour combat booy ñaa garga mboose ñoo bëree waaw huitième combat maag moom ñànga sumeeku doon billaahi xama billaahi ñànga sumeeku daan ponkol adon gandi gandinde billahi sama suba jor digen di jooy barke Seydina man len billahi wallahi bu len joy ki dama kay dan ñu bëre ma ak mom xex xex xex bu metti bëre ma dan ko ñanga warna al gisoon nañ fi bébé jeen daal dekk ku ci melni fils de balle est ce nekul mom tamit combat bobu dula xawa xép non bébé jeen mom deug yalla fils de balle du ko jël mom wa parce que wa fils de balle mënu jóge ci balle gay junior xamant daan ay tafa leer waaw mooy loo di jëlé bébé jeen xam lo dem jaarul loolu dam jaadul ko ci àndum mais wala nongoloo nongoloo moom may sens nongoloo cinq defa la tegle fii noonu moom dëgg yaa waru maa mun a bañ nongoloo waru maa mun a bañ maa moom combat dañoo war a mun a bëre nongoloo ma. sey ak bébé jën du mooy combat jànq bi combat bi askanu làmb soxla. combat la kay maag bébé jën làmb la barki Seydina Muhammad combat man grand combat sax laa ko bëgg càndum grand combat bébé jën suuf noonu billaay dina xam du dara inna mañik ma daan ko may ndi albarka ma dan ko wa ne ko na man jeen ker la ki mom la sol mais mom billah bu ñew billah bu billah bu su ñëwee billah moy ko sens bebe jeen wa jandum wa amna solo mbeur legi sa gu muju lan ngay tagato wa sama kadu gu muju may sa ni ma jappal rek jandum combat bu na gaa ñi dafa beuri billaay wallaay wa pressé nak lay njëkkee gaay combat bi dañ see japp quoi ko si melni grand Cheikh ndjay ay ñom Ahmed Lo Zal Diouf Zalmbour ay Moussa ay Pa Omar ay Samba xama ay Cheikh Bama Ndion ak hamas ak wa koloban xama leg may koloban wa koloban gay dañ Grand Allah ñom sar, barki Serigne Touba amba xaalis be lañ ma jox si combat bi ak sam benn grand bo xamanteni ni billahi wallahi grand bobu càndum heure su ma amee combat xam nga xaalis bëri jox mi ngi la grosse billaay wala bañ nee sama combat dina deux jours man ak booy bi ñoo fa ànd billaay mu yëkkat xaalis bëri jox muy grand bogum waa bu adil salim kooku moom waa dafa may dooleel ko waa càndum billaay walaay xam nga nekkul làmb lamay la jàppale waa billaay walaay lu mënta xew la bàyyi bi billaay heure su ma ko woowee kat rek billaay mënu ma ñëwal bogum maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi sant grand bogum bu salim maa ngi sant Maguette Seck waa Mafia Kara Aline Sey numéro 2 maa ngi di bege sama dom day mbeytin mbaytin koku mak mom moom lamb booluñ candu mbaytin sama xat la mbaytin sama mag la mbaytin koku ma beugal bopam boppam sama mbaytin sama dom ndey la candum di gox nak xale la lamb no la ko xama te general Malika mi ga da mun na dan ku ne ci lamb nga nga barke dem nu mu def rek rek mo dox moo tax mbaytin yow laay waxal xale bu ndaw nga amul len loy ñak ci lamb yow champion nga billah wala champion mang lay ñaanal heure boo amee de combat yalla la yalla may ndam may sante way waaye mo moo fi guuy gi wa guuy gi dem grand baax ku ñak ñaan la may ñom Igri wal Ron alin sey numéro 2 magat sek Kara ak gaayam combat yalla na yalla may ndam wa kasi si dundu yalla nako yalla may ndam asan tias wa mom tamit ëppam tay la xamna buñ fa lañ jëm inshallah ma mom tamit ma ngi koy ñaanal waa yàlla na ko yàlla may ndam waaye càndum may ngi sant sama waa koñ sama booy waa ku ci mel as ak tambour motor xam nga ko baax as day sonn samay mbir billaay wala xama waa dafa ne ñi ngi waajal effet doy waar waa fii si koñ bi waa fan bu mag waa lañ ci bëgg a taxawal waaw parce que man càndum man dama yàgg si làmb man dama war a bëri combat man damaa war a bëri grand combat treize combat koo def waa war a mun a bëri waa grand combat càndum billaahi wallaahi maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa di sant nag sama mag bu jigéen kooku damay jàppale waa muy Aïssa Aïssa maa ngi lay sant di la gërëm ak sama mag mama maa ngi sant sama soxna deug yalla mo dama may jabal dima dolel dooleel càndum barke Ba mi ngi fële mo baye ñag sama kër yaay mais billahi wallahi des fois fi lay nek ay ay 4 mois 3 mois sok fa dem billahi te du wax dara kooku moom sonlu ma ci dara ma ngay sant bax munas ma ngay sant diga geureum gërëm barke alxuraanu kër maa ngi sant ñëpp waa di sant sa mam ak sam wa galé sam mer waaw mer tamit tanu ba day sonu ci man non càndum yalla ma yalla dimbal ci làmb waay càndum baay ba ma ba ma tekki dimbali sa mère barki Seydina Muhammad o oh, canum samme rey sonu si suma may combat barki alxuraan billahi wallahi maa ñaana sampa o oh, yàlla na ko yàlla may gudd fan wér mu fekkee sama njëriñ waaw sam papa tamit daf may jàppale heure su ma amee combat doom jàmm chaque jour may woo téléphone foo nekk nii mbaa ngi préparé xam nga affaire yooyu noonu kon waajur yi <tsk> non samay waajur maa ngi lay ñaanal yàlla may la gudd fan wér ba ñu fekkee sama njëriñ man Thierno Baye loolu laay ñaan barki alxuraanu karim. am na solo. maa ngi sama booy nag sama booy sama booy waaw sama mafia bi ñoom nag heure su ma combat nag du ñu jàmm dañuy sonn trop. billaay walaay Thierno maa ngi ñëpp maa ngi sant ñi ma jàppale nag te combat maa ngi seeg daa am ñu ma booloo ñoo xamante ne nii waa dama faa yóbbu ñu may ma xaalis waa ku ci mel ni grand laay te mu jaay oto. waa waaye yëkkati xaalis bëri jox ma barki sëñ Bamba ak doom deem Ibou waa waaye yëkkati cinquante mille may ma waa ci combat bi nii maa ngi sant ñëpp waaw maa ngi sant Pape Sylla tamit jàpp na si combat bi ak ñi si jàpp ñëpp waaw maa ngi sant ñëpp su ma limee rek. damay juum waa sama waa koñ maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp. am na solo ku lim juum comme ni nga ko waxee waaw bokk nañu loolu moo doon waxtaan ba solo yom ten seq nañ ko ak euh, les jeunes espoir comme ni mu ko tuddee euh, Mbaye Tine numéro 2 écrit waalo mu nekk xale boo xam te ni ndaanaan la comme ni wax nañ vraiment xaw na takku daal ci am loo xam te ni la wane na ko doon xale boom bu ñëwee dina wan jom dina wan fulla dina wan euh, a ko Euh, joxoon nañ ko victoire mu introduire recours ñu mujj ko jox ndam doon na waxtaan bu am solo revenir na ci carrière am daal di wax lu bëri loo xam te ne tey euh, am na lu mu dénk aussi promoteur yi yaakaar naa dégg nañ ko promoteur yi la balle est dans votre camp euh, mu doon waxtaan bu am solo une discussion pleine d'enseignement comme ni ma faral di ko waxee di leen sant di leen gërëm du ma aussi les fidèles internautes ku ci mel ni suma mag ji Adama Ndiaye Gora